ak lim ciy waxtaane lépp eh, ak wàccaayam li nu ciy waxtaane mooy wàccaayu ramadaan wàccaayu ramadaan moo rëy ba saabaan mi ko jiitu rëy di weeru yonent bi sallallahu alayhi wa ndax daf ne rajab sahrullahi nañ ko baaxoo di wax toujours ci biir waxtaanu saabaan yi nee na ndeyu mooy weeru yàlla wi mooy rajab nekk rajabul far di di benn ci weer yi nga xam ni ci al ashurul hurum ci lañu bokk weer yi ñu araamal a xeex te moom mu fedd géewu ndax fële tabaskee nga fa woon ak euh, tam xarit ak diggi waaye rajab moom dafa ñëw dal di fedd géewu mooy loolu moo tax ñu nag ko rajabul fardi léegi euh, bi ci topp mu ne kon rajab moom saxarullaahi la mooy weeru yàlla moom da ko moomale boppam te weer yëpp moo leen moom ndax nee na inna iddata zuhuri indallaahi itnaa asara shahran waaye nee na zaban mii nag muy weer wi nu nekk nii nee na mooy weeram saxbaan sahri saxbaan mooy sama weer mu ne saxaru ramadaan nag saxaru ummati mooy weeru sama xeet yal na ci yàlla boole ñun ñëpp allahumma balligh naa ramadaan yàlla yàlla na nga ñu yëggale ñu fekkee ramadaan waaye yàlla yàlla jaamu yàlla gun la ca defal yàlla na nga ko nangul ni nu ko sante yàlla na nga nu ko noonu ci sa nangu ci sa tolluwaay te yàlla njuumte yi nga xam ne moom la ñuy def lu jiitu ramadaan ak gannaaw ramadaan yàlla yàlla nga ñu ko jéggal yow yaay jéggalaa kon bi ba yaay yërëmaa kon bi yaa rabbi kon saabaan mi ngi jeex te doon weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni toog di ci jéggalu yàlla lu rëy la waaye toog di ci sabaal yàlla lu rëy la waaye toog wax astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al da dafa daf ci am spécialisé boo xam ni moom la ci moom mooy moom la ci moom la yàlla def ci saabaan ba borom xam-xam yi jàngkat yi bindkat yi ñëpp di ci wax ni nañu bari xeetu istixfaar boobu mooy astaxfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum wa atubu ilayhi tawbata abdin zalimin la yamliku li nafsihi ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نصرة خير جيغلو غوغو بندكتي جامكتي يالا مك ني باخني صالحين نيب واخنا ني كيب كو خامني ñaan googu julli googu istixfaar boobu yaa ngi koy def diggante tisbaar ak tàkkusaan wala diggante tàkkusaan ak timis borom bi tabaaraka wa taala dina la jéggal na yàlla jéggal ñu rabbana axfir lana dunubana wa kaffir anna sayiatina wa yàlla yàlla nga ñu jéggal di ko sant ci may gi mu ñu may ñu fekki ko nii tey ñaan mu ñu fekki ko ay déwéni déwéni déwéni déwén ndax moo ne la in shakartum la azidannakum su ngeen santee ma doole leen te cant googu nag moonu war ndax mooy li la war ba noppi nga def ko ñu fayaat la ci yàlla sant la ko nga def ko mu fayaat la ci dencal la te cant di mag ñi dégg wolof lañ doon wax ne cant mooy kéwél mooy xéewal di kéwél waaye buum koy téye nag mooy xéewal buum gi téye xéewal mooy sant nee na xéewal mooy kéwél ñu def ñu tekki ko ci wolof ne xéewal kéwél la boo koy seet waaye ñu ne eh, buum gii tee xewal nag di buum gii tee yeew kéwal mooy sant kon lakk alhamdu yaa te jaam bi war di sant fu mu toll ci li ko xéewal gi ko yàlla defal mu bañ koo xeeb ndax kenn ku ne yàlla am na lu mu la xéewalee xéewal yee wuute nag xéewal yee wute rek waaye li mu la xéewalee am na ñu baree baree bare ñu la ñu la ci ñee ñu bare ñu la ñee ci eh, la bindkat ba waxoon nee na sa sëy bu ndaw bii ngay xeeb di ko xeb naan ah lii dafa xawa ki wax deug yalla amul solo de ma ngi sant yalla mu ni cey soosu ngay xeb mu ne la célibataire yep di mebet adina bi li ci célibataire yep ñi ngi mebet ñi ci ñak soxna manam ñi ngi mebet am ko jigen ñi ci ñak borom kër ta bari lool ne ñi ngi mebet am ko yow nga xaw ko oyefal noonu ah sama cey si mu ne sa cey su woyof soosu ngay xeb di ko woyofal moom la mom la sa nawle yi nga xamne amuñu ko ñoom moom la ñuy bu guddeeg bëccëg subaak ngoon moom la ñuy mébét ko ñaan yàlla yow yàlla xëy may la ko te defoo lu tax mu may la ko kon moo la baaxee may la ko kon li la war mooy nga sant ko ci kon sant gi moo ci war mu ne ziwaajukal basiit xol mu kullu azab mu waaye ibnuka saqi xol mu kullu aqim sa doom ji nga topp di sikkal sa doom ji bare bare bare kurub kurub lool sa doom ji bare yëngatu lool sa doom ji manam nga bu dem ba man ko tudde sax ku texé di nga xamni lu ne la bu ko jema sanni sànni mbalitum amul mbalit mu ñu sanni dom mu ne amul mu ni lu mu sik sik sik sa dom ju sik ji mom la ku jirmel ku nekk doon mébét nga aka nekhon ma am ko man ay way limu mu ci domam ji ay way limu mu wax ci domam ji ay way limu def domam ji aka nekhon man yalla jox mako ko xolal ma sa morom yi jirmel ni ñu toll sa morom yi jaasir ni ñu toll sa moroom yi nga xam ne amuñu juruñu mu ne ñu ñu toll toll nañu ne suuf mu ne sa doom jii nga nag ngay sikkal nag sa doom ji sikk jii ibnu ko saqiye xol mu kullu la moom la moom ku nekk di mébat doon pour am ko mu ne baytuka saxiir xol mu kullu mu ne ñi nekk ci ñi nekk ci ci ci ci ci mbedd mi enfant de rue yooyu wala ñi nga xam ne euh, dañ leen a tuddee sax ay colosar yu nekk ci biti mu ne ñi nga xam ne daal amuñu fu ñu dugg amuñu lu leen yiir amuñu fu ñu yiiru amuñu fu ñu làqu mu ne sa kër gu tuuti gii ngay xeeb foo toll mu metti la torop mu ne moom la ñooñu di gént fu ñu toll moom la ñuy mébét kon santal cant amul àpp lu la yàlla jox rek sant ca te lu la yàlla jox rek ne ak sant nga ca yàlla dina la nattu nga sant mu teggi nattu waaye nga sante mu moyale la natou benen yon bagn la ko teg baa mu tek la dara nga ñak sante doo xam lutax mu tek la ko fekk dafa am leneen lu ko gënonal metti gën ko sibu ci yow mu bare le li kon santal ci lolu ba nga yeggul ci lu mak la nga xane mo la gëna mëna lor motax mo ne la sa sa sa keur su sa keur su tuuti sii la gene metti ci yow lol nga di ko jambat, mu ni bu ko jambat sante ko yalla Anu anu ndax am na ko fanaan ci biti bu ci jotoon jël am na ko fanaan ci biti bu ca jotoon jël sante ko ne xale sa àndoon ak yaay ja ñuy yalwaan eh, ba mu naaj ba mu guddi ba mu kii ñuy wéeru ci booru miir yi ak di taxaw ci bunti kër yi ba taxaw ci benn benn buntu kër kooku génn sarax leen ñu ni ko ndax mën nañoo wéeru fii amuñu fi fu ñu fanaan ñu dafa ñu waroon a ñibbi dafa sori te nangam nangam amuñu fuñu ñu amuñu fuñu dëkk amuñu fuñu wéeku te guddi na mu ne leen ah man de aw ma fii foofu kenn nekk ñu ne ko sa terrasse sax boo ñu abalee ñu dinañ fa mën a yéeg ñun waxuma ñu dugg ci biir néeg waaye bu fekkee am nga terrasse sax nga abal ñu ñu dem yéeg ca kaw terrasse ba làqu fa moo ñu gënal mbedd mi ma wéeru ci maag sama doom ndaw si daal di ànd ak doom mu ne ko kon kaay mu ñëw mu ubbil ko mu jël escalier yi mu rombalé ko day sam néeg yépp rombalé ko appartement ah, yobbu ko ba ca terrasse ba mu ne ko ah fii de moom baax na mu bu di fii baax na mu ne ko baax na lool mu ma gënal mbedd mi fuuf mu ëpp sécurité bal ma fanaan fi maag sama doom naka ñu tëdd ba muy guddi rek xin wi jóg asamaan si tàmbali di ngelaw ak ak wicci wicci li ndox eh, yaay ji xool ba yàgg mu gis benn bunt buy wéere ab bunt bu ñu wéer bo xamne mo kenn utiliser ko mu ngi wéré ci mur bi ci kaw terrasse bi mu dal di jël buntu bi sepp ko ci eh, genn wet dal di wacce genn wet bi nak mu ko sepp noonu ñu dal di dugg ci suufu buntu bi ñom ñaar buntu bi wéru ci seen kaw ñu bayyi ci espace nga xamne dañuy bi dañoo ronu buntu bi melni ku doon bëgg ronu jall ñu dal di ron ñom ñaar tok ci suufu buntu bi ñu tok ci suufu buntu bi mu taw taw taw taw taw ba taw bi jeex ñu dal di yëkëti buntu bi dal di tek ne dal di toogaat ba ñu tëddaat ci terrasse bi don bu ko ëy yaay nan sant yalla xoolal ñu nekk ci mbedd mi di tawte ya xoolal ñu nekk ci kaw terrasse yi sax di mën nañu faa nekk tawte te te amuñu buntu bu ñu wéeroo ñoom xoolal ñun bunt bi ñu yalla xewal fi ci kaw ñu jël buntu bi wéer ko ci suñu kaw ba taw bi tawul ci suñu kaw ba jeex mu daldi di bokk sant yalla nga xamni jaam bi sant ko war ci lu ne sant ko war ci fekke gi mu fekke man de amaguma luma woré man de amaguma luma jëndeli man de amaguma luma borom bi tabaaraka wa taala sàkku rek la sant jaam bi am gi ci loxoom la nekk te mooy maye te dina la may dem na ba farataal sax la yow mi nga xam ni yaay woor dama farataal ci yow nga génnee muddi koor te muddi koor yooyu muddi koor yooyu permetre nañu la nga génnee ko ci bis bu koor gi tàmbalee tey jii la koor gi tàmbalee muddi koor gi yaa ngi ko war a jox faqir bi wala yaa ngi ko war a jox miskin mi nga ne ah man de sama muddi koor yi man lu ah, loolu ab dund la de lu ñuy dunde la té ñi ci koor gaa ngi dugg ci na te am na ñoo xam ne lu ñu ndogoo permettre nañu la nga nat sa mudi koor fi saasi te baña dem bu dé parfumé ngay lek nattal ci parfumé bi joxé bu fekkee ni eh, dugub ngay lek nattal ci dugub ji joxé waaye nak parfumé lay lek na dem jëndi benen façon ciép bo xam mo gëna yomb jox ko nit ñi mudi koor bokku ak la gën man kat ceeb lay lekk waaye nag amoon naa fi saaku dugub léegal ma natt ci muddi koor bokkul ak la gën li ngay dundee ci koor gi lañu wax li ngay dundee ci koor gi nag tey li ulamaaw yëpp d'accord mooy li ngay dundee ci koor gi xaalis la xaalis bi ngay jëndee ji ceeb bi xaalis bi ngay jëndee ji ndawal xaalis bi ngay jënde ji jën xaalis bi ci ngay jëndi tàndarma xaalis bi ci ngay jëndi lu ne ndax di koor na tes na ko ci tàndarma joxe ko ndax fekk na moo ëpp ca la ñu doon dundee ci biir koor ga booba dugub barewul barewul lañ doon dundé moy tandarma té waa ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam nako néna da na to ña wér da na fenk ci fekk ci sama kër gi ba beneen wér fekk ma beneen wér té duñu lek dara duñu dund dara lu dul ñaar ñu ñuul ñi moy tandarma ak ndox kon jamono yoyu tandarma joju nga am ak ndox mi tandarma joju ci ngay génné mu di koor waye tay bi nga xamé ni xaaliss bi nga yor ci ngay dund ci koor bi ci xaaliss bi ngay génné sa mu di koor do dem diko pc ji ciep nan man bi ciep lay lek be lay jëndal nit ñi man ceeb laay lekk wala yàpp laay lekk man koor gi du mënuma cee lekk ci ceeb bi damay jëndi ndawal wala damay jëndi jën ay firiir laay dunde loolu yëpp xaalis boobu nga koy jënde ji ci la la sant nga natt ci nga génnee ci mu di koor jox ko faqir bi wala miskin bi moom itam mu am lu mu mën a jënde ji lu muy ndogoo ak lu muy xëddee kon sant ci war bi la yàlla mayee nga fekkee ko santal te la nga newoon nga ne ca la nga newoon di fàggu ak lu mu tuuti tuuti tuuti somme bi nga ca daan am par fonde nga am ampar ngon eh, ñaari mbusi cere nga am ampar ngon am ko doy doylo ko dem diko doge ci ba yalla yanki la dimbele la ñi am lu bari genné ca may la ba ñu genné ca sarax la ba ñu dara farata war len te moy muddi koor ñu tel ko genné jox la ko ca wala ñi nga am na ñu nga xam dañuy xaar koor ba koor la ñu génne seen asaka lolu yep tok tay sante yalla te do sante yalla lo koy kesse moy la nga nekkone ca sa liggey soosu bu ko xeeb ndax amalu ko shaq xulmu kullu atilin sa liggey su ndaw so yor diko ko sama liggey bi sama liggey bi amalu ma njëriñ xakay amal na la njëriñ ndax moy kep ko xam koy semé nga liggey bobu mom rek lay xaar mom rek lay mébét mom rek la won sew jot ci mom lay ñaan yalla fu mu tollu kon sante ko yalla liggey su metti soosu nga yor sante ko yalla liggey su ndaw nga yor sante ko yalla liggey bobu nga japp ne liñ la ciy fay dafa tuti mbaa nañ mbaa dañu la ci sonal te sante yàlla yàlla mi la booleeg nga euh, dimbale la ba ngay liggéey sa ñàkku bopp di ko dunde te xëy na jaaralewu ko ci loxoy kenn xëy na liggéey liggéey moo moo ndaw waaye waaye santal ndax yàlla mënoon na ko jaarale ci loxoy koo xam ne bala nga caa jot sonn mbaa fu mu toll sonal la dang dang dang dang dangay dëkke dang dang waru maa musaaka dangay dëkke dang dang te daanaka rek bu weer dee la mu lay jox tekkiwul dara te defe ni moo la yor loolu yépp ak sant yàlla la te séentoo ko koor gi koor dañ koy sante yàlla mi ñu may ñu fekke ko yàlla ñu may ñu fekke ko fi may ñu fekke koor yu bare bare bare bare mu ne ndax am am bi nit di am lu mu tuti. tuuti maalu ko xalil xul mu kullu madyun mu ne sa am am bii ngay xeeb alal si nga yor naan lii dafa tuuti dafa tuuti nga di ko xeeb foo toll mu ne moom la képp ko am bor loolu la ni woon see yow am ko te moom ko te daray kenn bañ caa aju mu bañ a dëkk mañ koo fayee bor képp ku yor bor nee na mi ngi mébét moom amoon lu tuuti li ngay xeeb te fekk bañ yorul kenn dara waaye lii mu yor moo ko moom lu mu tuuti tuuti na ko moom loolu lay mebut moom ci àddinaam sama mbër yi fu ma koy ji yal nañu yàlla may ñu fay suñu bor ñun ñëpp yal nañu yàlla musal ci bor ak kuñ ko mën a amee ak fuñ ko mën a amee ak nuñ ko mën a amee yal nañu suñu borom dimbali ba suñuy bor fayu yal nañu yàlla dimbali boppam ba fay suñuy bor yal nañu yàlla dimbali ba fay suñuy bor jàmm am bor rek yaa ngi nekk ci jaaxle yaa ngi nekk ci métit yaa ngi neexu la de neexu la gënalu la waaye sant yàlla mi nga xam ne moo la fi bàyyi te jox la li la xam li nga xam ne joxagu la li doy te boole la jaam yàlla yi nga xam mën nañu jàppalanteeg yow ba di abal li nga mën di jëriñoo yow itam ngay ñaan suñu borom xéewal la ba nga mën di ko fay moo tax bindkat bi ni la sa liggéey su tuuti si ngay xeeb ak sa alal ju néew ci ngay xeeb moom la képp ku am bor nekk ci ala ju alal ji ngay xeb sa compte bu new bi ngay xeb mom lool lay mebet tan lool la ni won sew jot ci seew am ko mu ne sa wér gi sa wér gi ngay xeb sa wér gu yaram gi lele nga ni ah sama ndigg day metti lele nga ni ah sama tank bi day metti waye teewul yang koy di doxi sey itti di delus, teewul yang koy sooxaale bu nelaw jotee nga mën nelaw ba mandi nee ah kep ko febar lool lay mebet ke febar ma nga nan akane xon ni lepp sedd ba mu dess moo ak a neexoon lépp sedd ba des wóom yi ak a neexoon lépp sedd ba mu des bopp bi ak a neexoon lépp sedd waaw moom waxul sax lépp rex sax waaye yow li ngay xeeb nga xam ne moom la la yàlla xéewale ci wir nga di ko xeeb moom loolu la ni woon seew waaw xol mu kullu xol mu mooy mébatum képp ku feebar mooy gént képp ku feebar mu ngi gént moom yàlla jox ko ci wér lii mu la jox nga di ko xeeb moo tax bul xeeb mukk wér gi nga am bul xeeb dërëm bi nga am bul xeeb liggéey bi nga am waaye looy def sante ko yàlla bul xeeb kër gu tuuti bi nga am bul xeeb mbégte mi la yàlla defal ba nga toog ba yàgg xalaat ba yàgg nga neex daal di muuñ wala nga wax nit ba yàgg sa xol féex sa ci moom li nga dégg ci moom neex la nga daal di muuñ daal di ree mu ne bul xeeb loolu sante ko yàlla ndax xam nga am na koo xam ne loolu rek loolu la doon mébat ak a neexoon xelam mii dal tey ak a neexoon lii ci boppam bi wàññeeku tey du mu néew néew néew ba mu tala ree ree si ngay xeet moom am ñu naan ak am ne ay eh waay ko ñeeti liñ koy xool di ko seen muy nga xam ne kii mi ngi ci jàmm waaye kii ka nekkul ci jàmm di la xool moom fitam di firfiri wala naqar bi nekk ci xolam bii xamul fu mu koy teggee mu toog di ko diis yàlla di ñaan yow taxawal yow ngay sant yàlla ci fiix gi mu la fiixal ba tegu la lii te gënuloo ko waaye mbaaxam ak ay dogalam ak xereñam moo toll noonu ba ku nekk mu am lu mu la sedd kenn ku nekk waxtu wu nekk mu am lu mu la nattoo kii mu nattoo njàqare nattoo ko tiis moom mu ngi woon seew tey xelam dal ba mu mën a ree ba mu mën a muuñ moo tax suñu mag ñi dañ daan tere sax nit ku jékki-jékki xaqataay di ree ca kaw bu ko masaana def da ngay dégg ñu tuub ana kooku bu ko defee ka xaqataayoon ree ree bu ëpp ba ñépp di ko dégg ci biti mu daal di delloo boppam delloo siwaat boppam xam ni lii du mbiru julit julit dafay reelu yam julit dafay lekk lu yam julit dafay wax lu yam julit dafay waxtaan lu yam waaye ree ca kaw xaq xaq xaq lijël ñëpp ree ba yëkkati say tànk ree ba gëm xamatoo lu xew ree ba déggatoo dara yooyu du yëfi nit lu nekk da koy yemale moo mun la sa ree gi sa muñ gi bu ko xeeb sa muñ rafet gii sa muñ gi bu ko xeeb mu ne ndax mooy mébatum mooy géntu képp koo xam ne dafa nekk ci njàqare talul muñ talul ree te lii rek a fi ne àddinam naqara fi nekk ak bégte ak métit ak tiis ak jàmm ak leneen mu ne kon yow sutura si la yàlla suturaal yéer la malaanum sutura ba kenn xamalu la dara yéer la malaanum sutura ba boo amee lu la metti boo amee lu la jaaxal koo ko waxul du ko xam mu ne kooku mooy mébatum ki nga xam ne maara dem si dafa weeru ki nga xam ne mbiram dafa siiw mbiram weeru yàlla bu ñu ko déggal lu ñu ko warul a déggal yàlla bu ñu ko déggal loo xam ne gàcce la yàlla bu loo xam ne tuutaange la mu ne kooku li mu doon mébét sutura bii la yàlla suturaal ba nga ni dégg dox toog dem dikk lekk naan wax ak nit ñi jàmm te kenn xamalu la luñ lay waxal nee na loolu bu ko xeeb sante ko yàlla ndax moom la ki nga ki ki kii kii li muy gént ak li muy mébét muy ku weeru ki maar dem nga xam ne dafa ne faa ci bitti yàlla nu ci yàlla musal mu ne kookal dafa doon li mu la doon mébét ak li mu lay xool ak yow la ñee ci dégg ji nga ne dégg ak sutura bi la yàlla suturaal ba kenn xamalu la dara ndax sutura si yàlla rek a fi nekk suñu borom moo nu yiir malaanum sutura waaye kenn ku nekk yaa ngi ak la ngay nëbb kenn ku nekk yaa ngi bañ a weeru ci biti sutura si yàlla moo am moo tax yow mi yàlla suturaal ba weeru la nga sante ko yàlla sama ngi sant yàlla suturaal bi mu suturaal suñu borom maa ngi lay sant di la sant di la sant di la sant sant bu amul àpp di suturaal gi nga ñu suturaal jullit da koy wax mu ne ak liberté gi la yàlla may liberté gi nga mën a génn sa kër dem dellu si dugg génn nit seet la nga am soxla jóg dox ko wax ko mu ne liberté googu bu ko xeeb mooy xéwal gi gën a rëy ci xéwal yi sante ko yàlla ne la alhamdulilahi rabbil alamina maa ngi sant yàlla ci liberté gi ma may ndax moom la ka ca kaso ba moom lay gént moom lay mébét moom la ne seew am ko te ci la la yow moo tax sante yàlla motax dañuy sant yalla ci may gi mu ñu may ñu fekke tay di sentu tay ramadan tay ñaan yalla di sentu tabaski ñaan yalla di sentu itam xarit ak ak leneen ak leneen ñaan yalla mu may ñu at yu bari di delu si awamana adida yoo xamni daf ñu fi fekkat dañ fi fekkat dañ fi fekkat diko ko ñaan mu jéggal ñi nga xamni jitu gi nañu ñu barsàq yal na yalla jéggal leen te yaram leen di ñaan ñun ñi fi dess yalla suñu borom teunk ñu ci njub ba ñu fekki leen di ñaan sàmm caawa borom bi yalla nañu ko defal ak suturama xewalam نونغي واخ لك الحمد يا ربي لك الحمد يا ربي لان شكرتم لازيدنكم بروم بي نانا سونغي سانت رك ما دولي لين نونغي سانت نونغي سانت يا ربي نونغي سانت يا رب العالمين نونغي لي سانت لك الحمد يا ربي الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الارواح وعلى جسده في الاجساد وعلى قبره في القبور اللهم صل على سيدنا محمد وسلم كون بوكي dafa mel ni école au Sénégal dañ leen di tàgguwaat fii euh, ba beneen àjjuma incha allah euh, nu nekkoon ci sant yàlla ci li mu ñu may ñu man fee toog di waajal koor waaye di ko sant itam ci bàyyi di mu ñu fi bàyyi di ko sant ci bépp mbir di ko sant ci bépp xéewal di ko sant ci bépp coono di ko sant ci bépp métit di ko ñaan yàlla mu teggil ñu ko noo ngi gëm ay dog ay ay ay dogalam radina billahi rabban wa bil islami diinan wa bi sayidina muhammadin صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كون فماني نيغي لاني تاغو في بن عجمه وقتو ان شاء الله سين بوك سيدا عائشه جي مولن في تيوالون دي نويو بو باخ دي سانت وا غروب كوفاميس ابو اجارتو ارام تيام اجارتو كندا اجار داي بوب وايي دي سانت با اجار داي جاي جاو ñoom ñi nga xam ñoo amee groupe bi te ñu def école au Sénégal seen jàngukaay def ko seen waxtaanu kaay machallah guddi bëccëg suba ngoon ñu ngi and ak ñun ci cour yi di téwé cour yépp ya nak di ko suivre waaye ñu ngi leen di ñaanal bu baaxa baaxa baax ak yeneen groupe yi nga xamni ne ngi koy and ak ñun ñoom ajalatu Kumba Fall ñu ngi leen di Kumba Fall woni ñu ngi lay nuyu eh, bu baaxa baaxa baax yak sa groupe ñom sora nga xamni yeen tam itam yéen a ngi topp njàngale école au Sénégal tey suivre lépp allah euh groupe bu Adja Umu Kunta Ndiassane diko ko bu bu baax a baax doomam ajaratu awa bi ak mboolem ñi nga xamni mom la ñom lañu bokkal groupe bi ñu ngi leen di jox nuyoob école au Sénégal ak rafetlu bu baakha baax kuur yi nga xamni ñu ngi koy top waye di gëram aada mi nga xamni mo ñu nekkaloon ci technique bi ba ngeen mën ñuy seetaan ci jawu ji fep fu mu leen euh dugg leen ci youtube bi rek bu leen ko arrêté ben yoon waxtu nekk bu ngeen duggé rek di ngeen gis kuur yi insha rabbi bi yéen ngeen euh, participer ànd kook ñun ndax ànd bi rafetna ndax lépp diine ji rek lañu ànde alquran la ñu ànde hadith yonente bi sallallahu alayhi wasallam lañu ànde yalla yàlla saxal ñu ci rek ñoo ko ci sant tay ñaan mu dolli ñu seen mbokk sayda Aïssa Gueye mo leen fi teewaloon wa akhir dawana an alhamdulilahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jana kër ba sonn mën nga jàngale gi te doo bouge doo fay weer nga élève te toll ci examen li nga soxla am na fi te mu gën a Ici au Sénégal Tu peux facilement avoir accès à école au Sénégal